ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi ñu ngi leen di nuyu leen ñaanal jàmm ak tawféex leen wax ni ñu ngi ñëwaat ak yéen si direct bi di leen masawu nag di masawu ñëpp leen wax ni xam naa ne yëf yi tar na trop trop yëf yi tar na mais nag lu yàlla wàcce la jullit bi nag bu yàlla wàccee mbir daf koy nangu mais boole ko nag ak sabablu ñu ngi nuyu di jaar di jégalu ñëpp nag su ma sañoon toujours fu ngeen ma soxla jot ma mais xam ngeen ne liggéey bi dafa xaw a tar euh, ba tax na a chaque fois bu ñu amee temps bu ndaw rek dañuy daw am lu ñu leen baaxe pour nit ñu mën ko jariñoo ñu ngi masawu ñëpp nag si mbas mi metti na metti na metti na metti na fu metti yam ñu bëri nelawatuñ ndax mbir mi te it ni ma leen ko waxoon fokk it nit ñi ko ne seen liggéey kon li fi nekk rek mooy jël yi ñu mën a aar te boole ko nag ak di respecter mesures barrières yi te bi si njëkk mooy sol masque kon nañuy sol masque yi di raxasu hygiène bi fexe dëkkuwaay yi set nekk lu set kon loolu mooy li ñëwoon war a sant mbas mi nag li ma leen wax toujours rek ak nu mu mën a demee ànd leen ak seen xel ànd leen seen dal xam ne tawat la comme tawat ñëpp te lu mën a am saafara la du loo xamante ni traitement de incurable non du traitement de incurable ni ko docteur yi traité noonu lañ koy traité un traitement symptomatique ndax li ma leen waxoon rek que ni corona ñaar rek tax nit ñi ragal ko benn bi benn bi mooy mën na fàtt nit parce que dafa am benn mucus bu la dalee doomu jàngoro bi surtout euh, variété delta bi dafa am benn mucus bu muy indi say xëtër muy lu mel ne ay ritaxit lu mel ne ay lor bu far su ko defee bu occupé bronche yi ne si xëtër yi poumon yi mooy waral noy bi di jafe kon mën nga fatt fàtt bu gaaw ñaareel bi mooy mën na indi ay kayo mën na tax sa deret di woy di coaguler mu indi ay kayo kayo googu mën na indi na arrêt cardiaque bu ngeen gisee yenn saa yi dee di gaaw looloo koy indi léegi ngeen gis nii rek affaire bi daal ko lu gaaw rek mu dee c'est parce que bu ko fekkee yenn maladie chronique yi lu mel ni diabète wala hypertension wala yenn xeetu tawat yi lu mel ni asthme wala pneumopathie wala emphysème ak yu mel noonu pour nga fàtt dafay gaaw ndax lu mu manqué oxygène dafay dafay gaaw a toog moo tax tey ñu indi leen ñaari garab yoo xamante ni nit ñi part dañ ko partagé nag daf lay dimbali même ki am cas grave bi suñ ko ko joxee dafay dal dafay wér dafay tane ndax dina dindi mucus bi woon si xëtër yi ba mën a nooy normalement dina tax aussi da mën a circuler normalement benn bi mooy le bougainvillier bougainvillier xam ngeen ko mooy fleur bi ngeen di gis nii bougainvillier kii mooy bougainvillier fleur baa ngi def naa kii xam ngeen ko bu baax a baax a baax fleur yaa ngi nii gis ko nii li mooy fleur yi kii mooy bougainvillier yi am na si kër yu bari yoo xamante ni dafay sax nit ñaa ngi koy def si seeni kër di ko rafetal kër yi mais xamuñu njariñ bi muy bougainvillier bi bougainvillier bi soo ko jëlee nga boole ko xobu eucalyptus mooy xottu butéel xottu butéel baa ngi nii ñaari ngay boole xobu bougainvillier bi ak xobu xottu butéel bi bu leen nga bu loxo su ko defee da koy def si litre ndox ak genn wàll muy butéel évian bi baxal ko cinq minutes nga segg ko di ko jël par verre à boo ndékkee boo añee boole kii moom su fekkoon nit kii nekk si phase boobu nga xam ni dafa nekk si assistance respiratoire bu ñu ko ko joxee mu naan dafay am dal dafay am jàmm dafay commencé waat di nooy dadi commencé circuler respiration mu commencé ndax mucus boobu tax yooyu moom lay génn ba mu set su ko ki mën a amaat daal te aussi li ngeen gis nii muy fièvre euh, kii bi bi nga vie bi dafay wàcc fièvre bi donc antipyrétique day wàcce fièvre si lu gaaw a gaaw a gaaw daf lay yokk euh, tax nga mën a nooy mën a am oxygène bu doy ba noppi dafay dindi douleur articulaire du rhumatismal yi xool boobu aussi moom la xottu butéel bi di di di muy eucalyptus kon ñaar yi su leen ko boolee di ko jël même ki nga xam ne dafa am les formes graves bu leen joxee si kàttanu yàlla danañ am jàmm danañ am wér te ki am jabet mën na ko jël ki am hypertension mën na ko jël kon kii même ku jigéen ki nga xam ne sax dafa war na lool mën na ko jël te du ko du ko wàññi dara bu waa dafay jël genn wàll kaasataay rek du am benn benn problème mën na ko jël amul toxicité amul dara bu mën a andi loraange bu ko jeejee par genn wàll kaasataay en prévention mën na ko dimbali mu kon lii moom la ñu doon si mbas mi doon wax ni euh, démb defoon nañ vidéo si wëteen bi xobu wëteen bi ak xobu mbante bi ak xorompolle bi vraiment nit ñi song ko en masse noonu ñu ko songee ne lañ bëgg ngeen partage waat vidéo bi nga xam ne dañ ko def si wàllu buggeen vidéo bi ak xotu wëteen bi donc soo koy jël bu dee ki mu dal mën na koy jël par kaasu ataaya bu ndekkee bu añee bu ki koy jël en prévention aussi mën na ko jël noonu donc ki nga xam ne dafay nàmpal wala jigéen bi nga xam ne dafay nekk en état bu koy jël na jël genn wàll kassataay rek matin soir mën na ko dimbali euh, su fekkee dafa am corona bi donc mën na ko mën na ko jël ndax am corona boole ko grossesse metti na parce que pour un rien mën na di jafe jafe-jafe kon lii moom lañu indi woon si corona bi tey leen wax ne aussi ngeen ànd ak dal te xam ni lu yàlla bind rek bind na saafaraam ti ngeen jël yëf yi comme ni ma ko waxee woon man sama butéel a ngi nii waaw man sama butéel a ngi nii donc damay mooy sama ndox fu nekk nii waaw mooy ndox voilà voilà. man daal di laa gëm waaw mooy faj waaw lu ma daal daal maa ngi koy jël si du may lu may faj lu may aar lu may gàttalu maa ngi koy jële fii mooy si gàncax gi ndax moom laa gëm dama jàpp ni man soo jugee sax di dem hôpital yaa ngi jéggi garab gi lay faj si yoon bi kon ki jug di faj yu hôpital saa yu dem mi ngi jéggi li ko faj si yoon bi kon gëm leen leen di faj mu ngi seen environnement mi ngi seen wet gëm leen ko ngeen delluwaat cosaan ngeen faju te xam ne liy wéral mooy lii amul leen lu leen mën a faj lu leen mën a wéral lu mën a aar lu dul lii nga xam ne moom ngeen di bàyyi fi ngeen nekk muy gàncax gi gëm leen fu ngeen delluwaat cosaan actuellement ñu ngi ay recherche très poussée sur les cancers ak sur le sida te jàpp nañ ni bu ñu yàlla dimbalee danañ si gis bunt si kàttanu yàlla mën na mën na lépp yàlla mën na lépp gis ngeen duma ma ni kenn bul vacciné wu mais gis ngeen cas bërki dem rek senti bi seetaan ngeen ko médecin bi ñu invité mu ni moom recevoir naa en réanimation ñoo xamante ni defoon nañu vaccin bi te teewul dañ am Covid ba dem réanimation en Angleterre tey jii muy Israël rek fa nekk gis ngeen ñoo xamante ni ils étaient te tey jii affaire bi dalaat na leen kon waxoon naa ne ko man sama waxtu changé ne woon naa leen une grippe bu mu mën a doon muy courant muy beneen façon forme de grippe kenn mënu ko amal vaccin. vaccin boo jël bu boobu jàng bi ñëwaatee dafay muté man ba ma koy wax boobu corona ak seegul corona bi Covid bi ak seegul bu defee archive sama émission yi wax naa ko nee naa la grippe mun kenn mënu ko amal vaccin ndax dafay muté wu virus bi su ñëwee dafay naxaat yaram bi toujours tompe ko jël beneen forme li nga mën rek yor loo xamante bu ëgsee nga mën ko jëfandikoo ba am dal am jàmm wala nga jël ko ba bu ñëwee dana ko atténuer ba du la mën a indi yenn yenn jafe loolu daal laa leen di wax. gëm leen seen cosaan gëm leen li ngeen di faj mi ngi seen environnement gëm leen li ngeen di faj yéen a ngi koy bay gëm leen li ngeen di faj yéen a koy yéen a ngi dëkk moom. yàlla ba muy defar ba defar muy defar lekk di ñu jox ñuy bay ak kii deful loolu almet ñoo ko créé suñu bopp lekk ya commencement ba amul woon dañ nga daan jël rek lekk ñax mi la ñu ñaan lekk ak mbii fi noonu. ni affaire yi évolué lañ dem ba tàkk-tàkk am ba ñu mën defal fa di togg mais togg ñëwul ak nature bi kon loolu ñun ñoo ko créé kon nga xam ni garab gi gën mooy li ngay am naturellement garab gi saa yu ñu ko jëlee transformé ko yóbbu ko changé ko def ko ay médicament am na lu muy perdre si ay propriétés ay dose am na lu muy perdre si dooleem kon loolu nañ leen ci bàyyi xel baax a baax a baax lii mooy la nga xam ne moo ko indi woon du leen wax ni maa ngi gis message yi danaa ko recensé question yi si nekk ak laaj yi daan si ñëw incha allah si beneen jataay ndax ñun yéen ñu fi tax a dinaa ñëw léegi nag si version française bi ngeen bañ a sori maa ngi ñëw léegi defaat émission bi en